Faye numéro 2 dóor ko mu daanu wala boog yóbbu ko ardo suñu lamb xëy tey samp boobu laaj di ko laaj leneen loo xam ne yëglikaay bi di sunu làmb xëy na ñëwti ci xëtam mu njëkk mu yëg lamsaar ak seen jiitu ga nga xam ne jiitu nañ ko ak la jot a am ren yëglikaay bi dina six victoire benn défaite la yëg la écrit bi nga xam ne moo di lamsaar daal di def ren loolu daal la ñu wone waaye am na fay mbër yu mag yoo xam ne ni moom gisuñu leen ñu ci géew bi bëree ku mel ni fëga la moom mu nga fa nga xam ne mooy ci réewum États-Unis donte am na combat waaye jotu koo bëree nees ak supérétoile tamit ñoom itam ay anne balance la ñu def am na leneen loo xam ne nii wala yeneen xale yoo xam ne nii moom ñu nga fa di wane seen bopp ca biir lamsaar googa yëglikaay bi ñëw na ci moo xam Max Mbargaan numéro 2 ak ki nga xam ne mooy fils de Max ak nga xam ne moom moo di Farouz numéro 2 yëglikaay bi ne ñii daal pour suba moom ay yaakaar lañu ngir suba ba tey keneen koo xam ne nii moom mu ngay gën di carburé di saxaar di wane boppam muy Maama Lamine kooka itam daal mu ngay wane boppam bu baax a baax a baax Tidiane Faye moom yëglikaay bi ne réer la def kenn gisatu ko Siteu moom dañ ko mujj a confiné la jaar nag du leen la dul corona ba loola moo yàqub kombaam waaye Père Max Mbargane ñëw na ca la nga xam ne nii moom la écrit ba def moom mi directeur technique u Lansar maanaam daal ne écrit bu mu ci mën a doon fii ci réew mi yaa ngi reefe jël sunu làmb door bi loolu la Père Max wax tey ci résultat yi nga xam ne écrit am na ko kii moom carrière ci la ñëw tey seq ci waxtaan wu yaatu ak yëglikaay bi di sunu làmb muy liiru jàmm mu ni maamu géejowaay ba liiru daal la mu xam ne ci première kaseem ba fi mu toll tey ci carrière am bàyyiwul dara lépp waxtaane na ko ci biir yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne nii moom amoon na fi fan nii muy ku génnoon àddina papa yàdd numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci na na ginnaaw ak làqoom nag day ba tey xanaa tëngéej mën nañuy continuer di yaakaar ci ki nga xam ne moo di gàmmu géey en tant que xale boo xam ne nii mu ngi ci làmb di wane boppam yëglikaay xëy tey ñëw ëllëg ñu mel nekki lu mel nekki noonu ba tey tamit yëglekaay bi xëy na sampoob laaj ci saison bi nga xam ne maanaam saison ba daal maanaam xuy la def daal dina kamaj na mu gaawee yëglekaay bi ñëw na ca jàpp ñëwaat na tamit ci mel ni ki foofu tamit bu ñu deful ndànk day coronavirus ba nar na koo gën a jaxase yëglekaay baa xëy tey ñëw wax nu lu mel ni noonu mel ni mbëree daal ak covid ba moom yëglekaay bi ne est-ce ñoom nag duñu sol seeni mu leen yàqal bëri na trop trop trop trop sunu làmb xëy tey ñëw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 yëglikaay bi ñëw tey ci mbir moomu mu nekk mbir moo xam ne daal mu nar a doy waar la yëglikaay ba xëy ñëw tey wax nu ko buñ fa jógee dañuy dem record record nag moom dafa ñëw ci Modou Lo mi nga xam ne daal maanaam mbër yi bëri ak moom ak ah, wala boog ñi mujj bëri ak moom la nga xam ne nii jëlee nañ ko ca ci wàllu kase moo xam am Eumeu Sène la ba ci jàpp daal lu toll ci ay deux cent cinquante millions maanaam ñaari téeméeri millions ak juróom fukk mel ni ki daal bëri ak Modou Lo ah, daa mel ni kon est-ce que nekkul lu neex yëglikaay ba wax nu ko moom record xam ne ni moom am saison daa mel ni xaw naa neex muy caaka fay ci lamb simple ji ndax nag yëglikaay bi ñu record xamal nañu ne day caaka gagné na cinq millions trois cent quarante mille francs loolu la jot a am ci juróom-ñaari trophée tamit yemu ca juróom-ñetti nag tamit gagné na ko moom caaka fay mel ni ki daal caaka moom saison bii nga xam ne moo tëj wala bii corona bi tëj moom loo ci mën a dégg neex na trop trop ci moom record a xëy tey ñëw indi ñu mel ni ki lu mel ni ki noonu mel ni ki day réewum corona mii nga gagné ci ci benn saison lu toll ci juróomi million yu tegal ak ay nag yaakaar naa loolu moom yàgg maar ku ci jot da nga jël. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon su revue de l'arène bi ñu ànd na yéen nag si jàngatu añ bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar naa la nag sa ensemble rafet na lool. waaw merci jërëjëf yow tamit maa ngi lay féliciter ah, di la nuyu di la fay <laughs> daa di wax jërëjëf rek ensemble bi moom xam nga. Cheikh Lambaye fi jaar borom Petersen sama rakk jooju nga xam ne kenn du moom maa ngi koy bëgg di nuyu waa Petersen yëpp rawatina ñoom jib seen Babacar Mour la mag ñëpp mm-hmm. mais di la féliciter dem ci sa 3-0 yi macha allah leer na nañ yàlla nga jël final bi waaw loolu lañ lay ñaanal quoi di ko ñaanal supporteru parisien yëpp waaw uh-huh. waaw tey tamit ñuy xaar rek waaye tey nag moom man Bayern laa faral moom man moom ah, pare naa man maa ngi xaar dimanche incha allah. waaw kon nag ñëw na si jàngatu anet bi nu commencé ko ak sunu lam sunu lam ma dafa def benn euh, taxaw seetlu nee na ginnaaw bi nga xamee ni doon na euh, bàyyi ma ñoon kaw. Euh, jàpp nag Eumeu seen nàccal ko nàccal lu métti est que tey ji Gris Bordeaux mi war a jàkkantoo jàkkaar jàkkaarloo ak Balla Gaye dina ko def noonu. maanaam daal kaw ba mu defoon bàyyi ba ñun ak xeex bu métti bu mu xeexoon ak ëmma ba deret génnul ndax dina mën a def loolu ki nga xam ne mooy Balla Gaye ah dina ko mën a def du ko a def day a jàkkaarloog Balla Gaye mm. te ñu am fu ñu defe naa ne loolu lay bëgg ndax dina ko def wala ko def nag bés ba lay doon buñ ca yeggee yàlla nañ ca yegg ak jàmm waaye xam naa daal seen combat moom bi yoon moom ci li ma jàpp man en tant que kuy seetlu gëm naa ni bu ma nee seetlu nag maanaam koo xam ne da ngay xool ay mbër yuy bëree jàngat seen combat ni muy doxee gëm naa ne bi yoon suñu bëree ci kàttanu yàlla xalaat naa jël bu du leer naññ nañ dina fam du am daal yaakaar naa ay avertissement ak ba kenn di ñàkk ak yooyu quoi. Mm. Babacar na suñu jegee faas dañuy dem nag fi nga xam ne moom mooy Lansar Lansar nag nee ñu euh, ginnaaw bu defee seen bilan am nañu six victoire ak benn defee nee ñu daal Lansar mi ngi jafanu bu baax ki nga xam ne mooy fëgale moom dem na États-Unis rek toog fa càng ki nga xam ne mooy nees super étoile moom nee ay saison blanche daal ñoom la ñuy compter Max Margan daal moom lu mu gis daal moom nee nañu. seen yéene yëpp mooy gagné sunu làmb door bi Babacar. waaw loolu am na solo Lamsaar mu mel ni kon daal daa mel ni seen première ba ñu ngi ko gën a confirmé ah combat yi nag bëriwul waaye victoire yi allah bëri na nañ ne zéro presque parce que si victoire benn défaite moom ah te wax dëgg yàlla normal na lu xel nangu la di leen seen jiit boobu jiitu boobu ah, li nga xam ne moo si am na combat ak ki nga mooy armée yàlla dogal mujj ñu mën a bëre mu dem États-Unis mu nga fa parce que combat ah mën moo ne moom mooy Super ba tey nees moom yi mook Super Étoile tamit amuñu combat xam naa loolu bokk na ci li war tax ñu génn dem mais terewul am na fay xale yoo xam ne ñu nga fa ku mel ni Siteu waroon na bëri mois d'avril Papa Sow mais gis nga corona ba ñëw dafa combat bu xam ne itam ah, lu metti la si làmb mais yaakaar naa tëréwul am na fa ay xale yoo xam ne jot nañu def ay sorties ba assuré intérim ba ba indi fay victoire yoo xam ne moo tax yi fa mu yëgri boo ne a baax mm-hmm. ki nga xam ne moo nekk si journal bi wane boppam bu baax moom mooy Lirou sa xarit nee nag ñëw na nag mu defee interview ne ñëw nag si premier cachet bi nga xam ne moom la gagné ñëw na tamit si victoire bu mag bu yaakaar ni bu mu commencé bëree ba léegi ndam boobu am na ko daal. léegi sama xarit la waaye nee na ay nee na ay mais li ma jaaxal saytaane day gàtt waaye ndeysaan dafa nekk moom xam nga borom xol bu rafet la niiru jaxal bi fa na loo xam ne day xam bu ma xam mais xam nit lu nga xam ne borom xol ba naaj la bi ci des lay jàpp da jàpp rek quoi mais nit la waaw na nag kaf ak jàppal bàyyi mais tey xëy na ñëw ci carrière kon dama daan gars yi nañ toppit loolu liiru wax mhm. waxtaan nag yëglikaay bi suñu la waxtaan yaatu ñëw ci carrière bi début ba ba fi mu toll muy koo xam ne tamit dafa bokk si làmb ji mhm. keneen ki nga xam ne nag moo bokkoon si làmb ji te génn àdduna moom mooy Papa Yade te nag journal bi nee na ginnaaw nag bu mu génnee àdduna ba kooku di Papa Yade nee ñu nag ki ñu yaakaar ni moom moo ko mën a wuutu moom mooy Gambo Gueye mooy espoiru Rufisque Babacar waaw ah, rek jéggal ak ah ñi fi des ak yàlla yàggal la fi yàggal leen ñaanal mu mel ni kon tey ki nga xam ne mooy gàmmu bi ah ginnaaw Papa Yade génn dem na moom moo fi nekk tey tey muy xale boo xam ne tamit ñoom ñaar dañ leen son ndox dañ dañ leen daan jaawale

di da leen di neex parce que suñu bëreek moom daal dañu am ay millions yu bëre neeñ daal ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ak Ama Baldé bu nu boolee seen cachet ñoom ñaar ñëpp bu nu boolee cachet yi daal am nañ 250 millions lépp rek bu ñuy bëreek Modou Lo <laughs> waaw loolu day Lo nekk ñaari kese yooyu <laughs> waaye bul dem de bul dem bëre ji de ah, bu nangoo mu ko de man mu daal la nga am sa 250 bu bëreek Ama man na dama jox contrat ñu bëri ah comme boo bëree moom am xaalis am na solo muy loo xam loolu nag li ko li ko indi mooy xëy na ci làmb ji mm. par rapport ak bëreem ak ay defe yu bëriwul ak tamit li nga xam ne nii am na ko ci code de popularité. bien sûr ak sàmm image am yëpp na tax ba mbër valeur dina dem ba seer benn seeraay boo xam ne nii yow mi nga xam ne yow la yaa war a bëri ak moom saa yoo bëri ak moom rek da nga gis sa bopp bu baax a baax a baax ah. te yaakaar naa ñooñu bëri moom am loolu tamit ñun tamit mérito nañu lu ëpp loolu muy dama seen muy Ama Baldé parce que ku ci nekk ci lamb rek def nga lu war a tax sax nga fayeeku lu ña nga dëkkal mhm. nag si bëri dóor bi dañ dem nag si bëri simple bi foofu ba tey si record nee ki nga xam ni mooy Thiaka Faye bu mu defee daal ay tournois gagné na si 7 tournois te ramassé na 5 millions 300 340 mille ak ay ak ay nag maanaam 8 nag daal am na ko si voilà muy lu am am solo waaw 5 millions 340 moom bu ko ramassé corona bu ñëw taxawal <laughs> nga amaale say nag ah am na xaalisam macha allah moom jàpp ñu ko ci félicité am na ay nagam mhm. bu ko neexee naan naan soow ba doyal parce que macha allah moo lay wane li simple bi itam daal la ma la waxoon démb ah di ci jéem sa bopp ndax am na lu fa ne bien la mooy noos de plomb noos de plomb waaw man nag saa xam nga am na ay <laughs> noos d'or ay noces d'argent lool si ay mariage la ki nga xam ne mooy sunu xarit muy astandine ah. DG Brahma ak soxnaam Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies ñoom lay def 14 ans de mariage te la ñu am na 14 ans de mariage mu leen koy souhaité ne ñaan nag man nag ñaane ñemewuma nag ñaan ko yàlla nga takk ñaare xanaan ko rek ah. yàlla na yàgg daal du am si ay njaboot yu barkeel lu nuy seen doom maam Jaara Penda Rokkoy ak turandoo bi nga xam ne mooy astandine depuis fee nga xam ne mooy euh, Thiès di nuyu Abdou Gueye euh, Baye Fall jàmm gën euh, papay sita depuis ci États-Unis Babacar. loolu si mën a dégg daal ñu ngi leen di yooyu na yàlla na nekk 100 ans de mariage te ñu fekk lépp te mu nekk njëriñ ah. <laughs> muy waa Baraman yooyu ba tey gisaguñu Baraman <laughs> waaye wujj moom mënee su koo bañ ñaan ndax nag góor bu ne am nga droit am ñeenti soxna kon yaakaar naa loolu dara newu ci di ñaan yàlla rek sëy ba barkeel waaye nag ki nga xam ne nii moom moo di daal sama booy ba Cheikh Lambaye du man a ñàkk mu nuyu ko borom ensemble bi ne ko man te may xaar sama nga xam ne rek yaa ngi ñuy suivre ak foo mën a nekk ku mel moom tamit suñu mën naa suñu partenaire la moom tout temps mu ngi ci affaire yi di commenter di xama waaw ah, Cheikh Bass moom tamit Cheikh Bass non Cheikh Bass kenn amul fayam sama rakk tamit mami ñi nga xam ne daal ñu ñuy si waaye rek di wax leen rek ndey ko mba faat coup d'état yi ci Afrique ñi nga xam ne ñoo ne ci suñu gis nga suñu président yi xaw ñoo ànd ak i xel. dafa leen di xam ne nguur kenn ko ñett diisu ko ñett. boo laajee ñaari mandat bu ñu la ko joxee li lay wurusuli bu jeexee demal bàyyi. mais su neexee da nga toogaat ñu mën a gouverner suñu réew yi ci ñu mën mais africain yaa ngi daw di dugg ay gaal di dugg Europe di dugg États-Unis ñii di dee ñu leen rey foofu. te lu ko waral pour mën suñu njiit yi ñooy. responsable parce que laaj am réew bu ñu ko nga wax li ëllëg nga ne dootul woon lii lii laay wax ngeen nguur gu neex loolu nañ ci jóg lay am Mali gën a luñu Mali Sénégal ak Guinée Gambie Afrique benn la benn la yaa ngi dégg lu ma la kon nañu xoolaat bu baax a baax a baax ñoom autorité yi ñoom ñi ñuy dénk réew yi ñu xam ne dañ leen a dénk li ñu leen dénk moomu ñu ko bu joxe ko joxe wër ba nañ ko joxewaat keneen ku ku mën ne sa wërsëg nga ñëw jiite ko hmm. te ñu sa booy jiite nga fas yéenee liggéey ñu war a noose du fu ñu war a di defee def la neex yaa ngi dégg yaa ngi yàlla na fi yàlla jàmm def ko Mali def ko ci àddina bi yëpp amiin di nuyu suma xarit sumay samay xarit sax laay wax docteur Macoumba Diouf meeru Lat Mbengue sama mag suma xarit ak maître Pape Sène meeru commune Ndondol sama mag suma xarit di ñaan Sénégal yàlla fi yàlla def ba suba incha